ak noonu alxuraan di inde kàddu yonent bi di ko déggloo rox yi yonent bi dafa sonnoon ci rox yi nga xam ni ñooy taataan lumière alxuraan ñu fexe ko denc mu bañ leen rëcc yonent bi daf ci sonnoon dafa daan soññe sax wax ni alxuraan de ku ko dënnam jàpp firnde la ci ni nitu aljana te boobu yëgoon na ñëpp dañu bëgg nekk nitu aljana waaw mu ni ku dënnam jàpp alxuraan firndeel la ci ni yow nitu aljana waaw waaye boobu la mu doon jàngale mooy jàpp boo xam ni dafa ànd jëf waaw ndax yàllaa ko feelu ni ko kii mokkal lépp te jëfu ko moom mbaam mu yanu ay téere ñooyo yàlla ko ko seddeel waaw parce que xam nga baat boobu moom mbaam mu yanu ay téere ñu bari bu ñu ko déggee rek dañuy foog ni yàlla daf ci jublu xas mbaam déedéet yàlla du xas lu mu bind dafa bëgg wax ni mbaam mi nu yar téere yam ko ay téere bu ko neexee tëdd ci taatu garab bu ko neexee tëdd ci daara bu ko neexee tëdd ci diggu tali bi waaw kon yëmu yam yëgu ko waaw loolu la bëgg wax foofu waaw moo tax nit mën na mën na wax ni jàng na alquran mën na ni sax hafizul quran la waaye doo gis benn jukko alquran ci moom waaw te mag ñi buñ daan yéemu ñoom loolu leen leen daan yéem mooy nee na ñu gis nit ni yonent bi mooy royukaayam waaye nee na bu waxee doo xàmme yonent bi su jëfee doo xàmme yonent bi soo jëflanteeg moom doo xàmme yonent bi waaw ndax nee na jëf bu muy jëf te diamétralement opposé ak bi meloon ba noppi nag nee na boo waxee ñu ni euh, pourtant ñun ñooy euh, maanaam yonent bi sunu sunu sunu royukaay xam nga Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa ni missionnaire ñett rek lañu koy dénk mu ni missionnaire bu nu seede mission am ñett lañ koy dénk mu ni bi ci jiitu mooy ñu ànd ak moom gëm ko yàlla dana leen terale aljana mu ni bi ci topp mooy ñu ko weddi ëllëg dinañ ko diggaaleeg yàlla ca yowmal xiyam mu ni beneen bi ci topp mooy ñi sacrifier seen lépp ànd ak moom doon ay compagnon yàlla dana leen gërëm balaa ñuy génn àdduna gërëm leen àllaaxira